télé bi bégal sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV ning ci gis sa bopp jànge falun émission chez le vétérinaire dina ànd ak yow saytu wergu animal ngir a saytu sama mi dundee. teew fii ci Ladoum TV. Ladoum TV jox la kàddu. nga mën a jaar jaar. ko seetaan bu mm. nanga wane sa bopp ci émission jaar jaar mi nga am ndam. Ladoum TV télé askan bi. mooy wane fi nga mënee ndax ñëpp xam. spectateurs yi comme ni ngeen ko xamee ñu ngi fii ba tey euh, ci euh, seen sixième édition salon de l' bu euh, cercle des éleveurs de la banlieue ñu ñëw nag fii nga xamante ne moom mooy bergerie Seydi Djamil box numéro 189 fekk fi nga xamante ne mooy le grand champion Pape Mboup nuyu nañ la ziar la bu baax. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu waa àdduna bi yëpp di nuyu waa Ladoum TV vraiment di di nuyu vraiment. Euh, yow ji bi yow ma jox micro bi su ma la nuyoo rek nuyu naa waa ñi nga àndal ñëpp maa ngi nuyu ñëpp en tout cas di am mbégte vraiment ak kontaante euh, si vraiment dékk bi ngeen ma dékk micro. macha allah nga ñëw ci foir boo miin boo xamante ne vraiment édition yi nga ci ñëw defe naa bu dee am nga boo ci tardé wala yoo ci tardé bariwul naka nga nekk di dundee euh, foire wa cercle des éleveurs de la banlieue. waaw effectivement bon di di félicité di félicité bu baax président docteur Niang. ak euh, ñi mu àndal parce que boo ko boo waxee docteur Niang rek wax nga waa waa waa cercle des serveurs de la Mali yëpp. vraiment ñu am mbégte vraiment ak kontaan bu baax a baax di di wax ne am nañ fi satisfaction bu baax parce que vraiment foire bi am na niveau euh, niveau organisation. Euh, niveau exposition parce que yaa tamit exposition vraiment xar yu rafet vraiment tamit am na sécurité vraiment foire bi daal vraiment xam nga 100 cent amul mais nag vraiment mën nañu daal seen atteindre seen objectif daal macha allah nga nag exposition bu day waar Pape mbote bi mooy kan. waaw mbote bi moom euh, moo nekk euh, mu nekk doomu doomu doomu Thiam Babel euh, vraiment presque fi mu doon nañ sax mën nañu wutaloo guñ ko tur parce que dafay nàmp. waaw vraiment mu nekk daal mbote boo daal mi ngi noonu daal waaw nekk doomu Thiam Babel ak Kumba Fall. voilà waaw Kumba Fall waaw. fu mu bokk. Thiam Babel dañ ci ñëw. waaw Kumba Fall yaay Kumba Fall mooy yaay Kumba Fall nekk doomu notaire notaire nekk doomu Ndiol Séra ak yaayam nekk doomu Abdou Fall. wala Coumba Fall ñëwaale benn waaw moto bi xam naa bientôt moom 3 mois. Mhm. waaw waaw parce que feragul quoi. mais waaw moom espoir la quoi. añel bi mooy mooy moto bi mooy taawam quoi mooy taawam waaw. doomu notaire ak euh, nekk doomu njool séeréer. Euh, ak ak yaayam nekk doom yaay notaire nekk doom Abdou Fall. macha allah ñëw nañ foo defal la émission mu nekk maal boo xamante ni li mu def ci ay doom vraiment euh, doy na waar. Mm, mm, mm. waaw xam nga man damay liggéey si maal ñëpp xam nañ loolu. Euh, damay am dama am habitude di dugal maal yu bëri ñëpp wax vraiment yaakaar naa ni comme damay faral di liggéey ak Ladoum TV yaakaar loolu ñoom xam nañ loolu saa yu ñëwee di di def foofu interview danañ fa fekk beneen maal boo xam si bokk woon ak maal bi mais nag yenn saa yi tamit da nga am maal boo xam si vraiment. di nga di nga li nga bëgg dina ko mën nekkul maal yëpp yu ñëwee ñooy génn mais am na maal bu ñu fi ñëwee dañu fa resté pour pour pour pour pour pour liggéey fa daal waaw waaw. mu mel ni indil nga ñu beneen femelle ki mooy kan. ki mooy Rama waaw ki mooy ki mooy Rama moom it nekk doomu notaire euh, nekk espoir moom it nekk espoir euh, vraiment moom moom croisé na nii mais wàcceegul quoi waaw moom croisé na wàcceegul moom tamit euh, xam nga yaayam doomu yaayam doomu doom doom doomu Neymar la. waaw moom mu nekk doomu notaire comme notaire ma ko expliqué rek moom it espoir la quoi mais moom wàcceegul dañ ko indi rek pour pour pour wane liggéey boo xam ne doon nañu liggéey si at yi si ginnaaw ba xam fan lañ ci toll ko également Pape may seen benn tëng bu am robe bu rafet macha allah xajal ñu kii. mooy kan Pape. ki mooy Miss Teranga euh, <laughs> Miss Teranga nag nekk euh, vraiment si euh, yaay ji laay njëkk ñëw yaay ji nekk teraanga Euh, foyel sama foyel boobu mu tuddee teranga yaakaar naa ne ku ma xam xamay maak foyel foyel boobu merci waaw léegi nag moom nekk na foyel boo xam ne vraiment euh, liggéey nañ ci base base foyel boo dëgër la parce que am na fay mag yu jigéen kër ga mais moom euh, surtout surtout la jaw nekk doomu teranga waaw kon moom moo tax ma tuddee ko ministre teranga parce que yaayam teranga lañ ko tuddee maamam bu góor teranga lañ ko tuddee ba pare mu parce que tamit xale la mais dama pour pour comme ni nga ko waxee rek ni doon liggéey ñu xam ne liggéey bi fii lañ tolloon progrès nañ quoi. Mm-hmm. également Pape ba tey mu mel ni gis naa beneen borom robb na ñëw borom robb bu ñuul bi mooy kan Pape. kii kii mooy kii mooy kii mooy kii mooy kii mooy très bien waaw waaw très bien nekk euh, ni ma ko mën a expliquer mu nekk mu nekk sëtu sëtu gabaar gabaar gabaar nekk doomu solution solution nekk doomu saalu saalu mais bu dee beneen côté bi mu nekk tamit euh, sëtu euh, kii bien sûr dafa jur benn doom bu tudd Bal euh, euh, Petit Moussa mu nekk mi ngi Touba ah moom moo jur moom moo jur kii kii kon doom Petit Moussa la Petit Moussa tamit euh, surtout Salm la waaw waaw moom daal moo nekk noonu quoi moom mi ngi toll ci 7 mois jëm 8 mois quoi. mel ni dugg na concours. waaw dugal nañ ko dugal nañ ko pour évaluer ko rek xale la xale mi concouré ko mag mais tamit comme dañoo ñëw pour li ñu liggéey ñu évaluer ko hmm, moo tax ñu ne nañ ko dugal quoi. waaw waaw voilà loolu loolu rek lañ ci jublu quoi mais nag com compétition moom bon da ngay rek pour évaluer parce que compétition añoo euh, euh, añal loolu moom jury yi ñoo ciy jël euh, seen ñoo xool liñ koy kii boo xam ne koy natt xam nga concours bu ñuy natt moom mu xëy exactement xam nga foo jëm mais moom da ngay ñëw pour évaluer sa xar après li ci des nga bàyyi si loxo yàlla quoi. Hmm. nga defoon nag recrutement bu am solo vraiment ñu ciy nuyu suñu xarit suñu frère Modou Dramé mu nekk koo xamante ne tey kenn ku nekk xam na ni euh, yor na fi maal boo xamante ni tey euh, élevage Sénégal daf ci def participation bu rëy rëy rëy jur ay doom yu góor yu nekk champion comme doom yu jigéen yu nekk champion nga am ci doom yu góor yooyu muy kan. kooku mooy Thiam Babel nekk doomu Maxusey euh, yaayam tamit nekk ngénte li nekk doomu Maxusey bu fekk dañoo jël Latifa Latifa bi jëloon fekk ma 2016 moom lañ jël teg ko ci Maxusey mu jur benn fomel ñu tuddee ko ngénte li fayal boobu ñu ñëw tayaat ko si maxu moom mu jur mu jur mu jur càmbaabeel waaw yaakaar naa daal explique pour pour explication bi gën a gàtt euh, Makhoussay jëruñu fi toog di ko présenté Latifa jëruñu koy présenté kon kon pour pour explication bi gàtt rek voilà. mu nekk maal boo xamante ni production bi commencé def sa kër yàggul ndax defe naa taawam yi mu fa euh, am sax amaguñu amaguñu tur. Mm-hmm, waaw taawam yi amaguñu tur xanaa ay à peu près ay ñoom bu benn benn xar rek moo sa baale. waaw waaw bu sa baale doomu doomu Yacine la. Yacine Gueye <laughs> waaw. moo dàq ca <laughs> waaw en tout cas en tout cas ku ku ràcc sa kanam mu dal la mais euh, yi ci des yëpp amaguñ tur quoi waaw waaw mais nag wax dëgg yàlla def na production boo xam si euh, boo seetee fi noonu mën nañu benn benn benn benn bi mu jurugu yëpp benn maal la ci des yëpp ay ay femelle la waaw waaw mi ngi noonu daal ñu ngi noonu waaw waaw mi ngi noonu daal. en tout cas mu nekk liggéey bu am solo bergerie euh, Seydi Djamil ku fa bëgg a ñëw fàttali ñu adresse bi ak numéro de téléphone. ñu ngi nekk fii dakaar nekk si banlieue bi nekk yëmbal benn baraak ay nomades yi terrain koko yi Euh, téléphone 77 512 38 76 waaw yaakaar naa daal ko ku ñëw ba tali moom boo ñu woowee rek parce que nag ñu nag tali ba xonq euh, presque euh, troisième lañ nekk ci ci kaw tali bi voilà waaw. en tout cas kontaan nañ merci beaucoup. waaw ñun ñoo gën a kontaan vraiment ci waa Ladoum waa Ladoum TV yëpp waxee Ladoum TV euh, wax nañ ñëpp en tout cas képp koo si kon yaa ngi dugg Ladoum TV ñu ngi lay nuyu de la ziar di am mbégte ak kontaan vraiment si seetaan bi ngay seetaan Ladoum TV ak seetaan bi nga ñuy seetaan ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne yàlla yàlla ñëpp defal jàmm bi mooy télé bi bégal sama askan Ladoum TV Ladoum TV